baaxal ko ci lool ci wàllu xam-xam euh, balaa ñuy sori dañ koy daal di bàyyi kàddu gi mu daal di nuyoo al oustaz Mamadou Lamine Dramé asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah aouzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki Sénégal mbokki Afrique mbokki àdduna bi yëpp ñu ngi leen di siyaare siyaare bu baax a baax baax ñu kenn. fu waaye mën a nekk ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu te kàddu gi itam ak waxtaan bi itam di bàyyi ko ci incha allah jàmm ji info point net fas yéene waxtaan yéen bisimilah ngeen may ñu nopp. jërëjëf al oustaz Mamadou Lamine Dramé al oustaz Mamadou Lamine fi may jëmee rek euh, waxtaan wi muy li nga xam ne rek moom la ñu tuddee li nga xam ne mooy jotaay wi muy kàggu mag ñi euh, kàggu mag ñi euh, lan nga ci mën a leeral askan wi mu mel ni tam muy kàddu goo xam ni xëy na xaw na raar ci déggin luñ ci mën a leeral. waaw bisimilah alhamdulilah baat la boo xam ne jumlatul muxtasara la tudd maanaam baat la boo xam ne nii eh, gàtt na mais dafa gudd maana waaye waxuñ ne eh, kàddu la. parce que biñ ne kàggu kàggu la ñu wax kàggu mu ngi ci e, kàddu mu ngi ci kon kàggu la tudd kàggu nag mooy dencukaay ñun ndaw ñi léegi ni ñu ko xamee léegi ci jamono bi mooy coffre-fort wala ñu ne banque ba gis ngeen turu yi nu mu bëree waaye ni àdduna bi amee ay ay ay turu banque noonu la mag ñi amee woon ay turu banque li ñu lor nag mooy dañ koo xamut suñu ko xamul nag kàggu mag ñi mooy place ba mag ñi daan denc seeni mbir ak lu mu mënta doon fañ ko daan denc amoon na ay place yu bari waaye nekku doon benn ca daara ji rek ci lañ doon teg seen tiir yi rek muy kàggu mag ñi déedéet. parce que dafa amoon lu ñu doon wax kàggu mag ñi foofu ay tiir lañ moo fa daan nekk ak ay xalimba ak ay daa ak seeni jis jis ci àddina ak yi nga xam ne ñu ngi koy teree doomu aadama yi ak yi nga xam ne ñu ngi koy sant doomu aadama yi ñu di ko dundee ak di ko doxee ci biir jamono bi loolu mooy kàggu mag ñi. ñoom amoon nañu benn place boo xam ne ni loolu ci biir kër biir kër la daan nekk ci biir kër gi lañ ko daan def comme li ma la waxoon ne léegi banques yi la dañoo bari am ñoom amoon nañ beneen place bu ñuy wax gent kooku daf daan sori àll ba tuuti daan na mat ñaari kilomètre ba ñetti kilomètre kon gis nga ñaari banque ngoog am na itam beneen place bu ñuy wax xàmb mooy fa lañ daan denc seen i ñaan yi ñaan boo xam ne nii lu lay aar la ak loo xam ne nii daf lay xëccal wasak ak loo xam ne nii daf lay ubbi ak loo xam ne itam day gaawal say mbir maanaam sa jamono day jekk sa àddina day jekk sa àllaaxira jekk loolu moom lañ daan wax xàmbo kooku itam gis nga benn banque la ci mag ñi ñoom fan lañ fan daan def loolu ñu ko daan def ci benn place boo xam ne nii moom la ñuy tuddee bul yaatu bul yaatu nag diggante moo ak kër gi boo mën na mat 500 mètres mën na mat 700 mètres waaye daanul sori kër gi gis nga foofu itam mag ñi daan nañ fa denc ko gis nga ñett ngoog beneen place boo xam ne ni kon banques yi ni ñu bëree ñoom itam am nañ beneen place boo xam ni moom la ma ngi tuddee woon pekk pekk nag euh, suñu ko waxee benn koñ lay doon ci kër gi euh, ñu ut fa benn néeg tabax ko mu wër néeg bi doo am buntu amul buntu pekk amul buntu euh, pekk boobu lan lañ fa daan def mooy seen dundu at mi fa lañ ko daan denc mooy noor ak nawet lépp loo xam ne ni ñu ngi koy dundee ci wàllu dugub dugubu dugub wala mboq wala suna wala feelaa wala ñebe wala yeneen yi nga xam ne moom lañuy dundee ci at mi fa la ci pekk ba lañ ko daan denc gis nga muy eh, ñeenti place mu ngi noonu moom ci biir kër gi la daan nekk am na itam beneen place boo xam ne nii pénc la ko mag ñi daan tuddee pénc bi nag moom daanu sori kër yi daan nekk ay 100 mètres ay 200 mètres ba 300 mètres ci kër yi place la boo xam ne nii place su noppalukaay la daan doon ci ñi nga xam ne dañ daan dox ba yegsi ci dëkk bi wala muy muy place boo xam ne nii eh, ci lañ daan toog di waxtaanee lan moo xew ci àddina bi eh, li xew ci àddina bi lañ ca xam ban yoon la mag ñi mën a jaar pour lijjanti ko place boobu mooy penc gis nga ko moom ci digg dëkk bi la daan doon waaye daanu sori kër yi moom itam benn place la ci boo xam ne nii ci kàggu mag ñi la bokk eh, gis nga bu ko juróom eh, ñaareel mooy bant kàngaarlu bant kàngaarlu moom itam ci kàggu mag ñi la bant kàngaarlu benn bant bu rëy lay doon doo boo xam ne nii eh, comme ñun tey li ñu ni ñu tuddee ni ñu ko tuddee ci wàllu wolof ci suñu saal yi ku ñëw foofu ngay toog xaar ka ngay xaar bant kàngaarlu nag mag ñi dañ ko daan def ñoom ci seen buntu kër parce que ñoom seen buntu kër bëggu ñoon ngay ñëw di xool fii di xool fii lu ne ngay xam ci biir kër gi di xool góor ñi di xool jigéen ñi danga dugg ci kër gi ba génn sax doo gis benn jigéen da nga naan fii jigéen nekku fi pourtant jigéen ñaa ngi fa di liggéey seen bant kàngaar boobu ci buntu kër gi la daan nekk boo ñëwee foofu ngay toog xaar ka ngay xaar noppalu la ngay noppalu ki nga soxla jamono bu mu génnee ñu la ko mu doog nga doog a dugg ci biir kër gi ngeen waxtaan gis nga mag ñi ni ñu yaree woon seen àddina juróom-ñaareel baa ngoog am na itam juróom-ñetteel ci kàggu mag ñi la bokk juróom-ñetteel boobu mooy fu ñuy wax ngédd moom euh, ci gannaaw kër gi la daan doon daanu sori kër gi ay ay ay ay cinq cent mètres ba huit cent mètres ngédd boobu fa lañ daan mag ñi daan def seen ñaam bi euh, def fa seen ñebbe def fa seen euh, mbir yi nga xam ne ni ay yenn xeetu garab yi nga xam ne ni ñun nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu faju cosaan ak aada foofu lañ ko daan jëlee loolu nag Eh, mag ñi benn tool bu ndaw lañ ko daan def ci seen gannaaw kër kon gis nga eh, kàggu mag ñi juróom-ñetti place la place bi ay téere ñoo fa nekk bi pour jàngukaay la pour eh, def tarbiya la ak itam bay ay garab moom la tuddee gent beneen place bi pour affaire u ñaan la moom lañu tuddee xàmb beneen place bi moom lañu tuddee pek fa la ñuy def seen dund beneen place bi mooy moom lañu tuddee penc fa la defee seen musaawara fa la daan waxtaanee seen mbir beneen bi moo tudd bant kàngarlu ku ñëwaan ci dëkk bi foofu ngay toog xaar leen wala nga ñëw ci kër gi foofu ngay toog xaar leen ba ñu ñëw am na itam fu ñuy wax ngédd foofu lañ daan def seen tool pour bay eh, seen seen mbiru mbay ak garab yi nga xam ne nii ñoom lañ daan defar di ko jox nit ñi léegi nag li ñuy dénk doomu aadama yi mooy ne képp koo xam ne ni bëgg nga xam juróom-ñett yi soo fa jëlee xam-xam am nga xam-xam bu wér comme ni ko jàmm ji info info génnee tey man ba ma dalee faj maa ngi ci quatre ans tey laa mos a gis euh, journaliste yu am xam-xam yaata seen dënn yaata seen xol tudd kàggu mag ñi parce que lii ñu bëri xamuñu ko juróom-ñetti point la euh, soo bëggee xam-xam bu leer naa xam-xam bu wér juróom-ñetti yooyu fexeel nga dugg ci benn benn boo ci dugg rek la nga am dana doy sëkk di ko mën a jëfandikoo lii bokk na ci li nga xam ne nii luy rafetal nekkuwaayu doomu aadama la ci kàggu mag ñi kàggu mag ñi daal euh, téere ay téere ay lay doon ak ay biig ak ay daa ak seen gis-gis ci wàllu àdduna ak itam la nga xam ne moom la ñuy sant seen njaboot ak la ñuy tere seen njaboot loolu yëpp mag ñi dañ ko daan bind def ko ay téere yu mag denc ko ba tey jii loolu boo demee tey ka seyul xadim kaanaloo bi karim yi baaxil xadim am na Touba place boo xam ne nii téere boo bëgg ci wàllu xam-xam mu nga foofu waaw lu tax du ñu dem foofu boo demee jaamal ka Alaaji Abda euh, Alaaji Abdou Cissé yàlla yokk leeram am nañu place boo xam ne nii salle bu yaatu la mat na 9 euh, mètres carrés téere boo bëgg buy jàngale wàllu lislaam wala lu loo xam ne ni mën nga koo jëriñoo ci sa ci sa saayir ak sa baatin rek boo demee di ko fekk foofu boo demee Tiwaawoon loolu am na fa kon kàggu mag ñi daal mu ngi ak ñin ndax nit nangu nañoo sol seen dàll sol suñu dàll dem gëstu ju kàggu mag ni wala déet waaye journaliste yi daal ku leen topp fu ci mel ni jàmm jàmm ji info bi di point net incha allah di nga xam lu bëri ci mag ñi ndax itam li ñuy dundee dund dund bu ñu bëggee dund bu baax dund bu jekk fan wu gudd wér gu yaram foog ñu àndal la mag ñi daan dundee te loolu juróom-ñetti point la juróom-ñetti point yi nag benn boo ci liir topp ko rek di nga jëriñu incha allah kon daal kàggu mag ñi mu ngi noonu eh, point la boo xam ne nii eh, point bu euh, gàtt la waaye bu gudd maana la ñuy sàmm ko incha allah bisimilah. Ah, al oustaz Mamadou Lamine Dramé eh, fi ma jëm rek tuuti fi may daanale ndax waxtu bi sax mu ngi ñuy dab muy lu yaatoo yaatu ci li nga indi ci xam-xam li may wax rek mooy lu tax léegi ñu bàyyi li ñu moomoon li ñu moomoon muy xam-xamu maam xam-xamu cosaan xam-xamu démb lan moo tax léegi askanu ci boppam dafa mel ni dafa raaf ci jamono lan moo waral li ni mel. waaw parce que mooy mooy li ni jamono jamono bi dafa bëgg yàqu ndax léegi nu mu bëgg yàqu ñun ñun ñun ñoo bëgg a yàqu e, bëgg a yàq jamono waaye jamono mu ñun mën nañu koo yàq parce que e, léegi dañuy xool li ñu li gën a neex li gën a yomb après ñu téye ci loolu bëgg koo def dunduwaay te mbir yi daanu demee na mag ngi dañ daan sonn gis nga fi mu nekk nii boo duggee ci biir dëkk bi Euh, épicerie boo dem di fa gis lu mat juróom benn façon xeetu meew yoo xam ne benn bokk ak sa morom pourtant mag ñi amoon nañ place boo xam ne fa lañ tuddee gétt gétt boo demee diggante moo kër gi euh, ay 800 mètres lay doon du ma sax kilomètre. léegi nag meew yooyu ñu fi daan jëlee ak soow yooyu ñu fi daan jëlee ak yàpp yooyu ñu fi daan jëlee ñoom moom lañ daan dundee gis nga wax naa léegi pekk dugub a fa mboq a fa euh, saañu mu nga fa suna mu nga fa. bon ñebbe mu nga foofu léegi yooyu mbuum mu nga foofu yooyu yëpp benn kenn koo ci jox loolu tey danaan la walla man duuma baadoo la bay lekk mbuum te pourtant mbuum boo koy lekk doo am jabet ñebbe boo koy lekk doo am cancer cere suna boo koy lekk doo am constipation chronique bi nga xam ne mooy indi hémorroïde dinañ ci ñëw léegi. léegi nag mag ñi daan dund téeméeri di dem ci tool yi di dem ci daara yi di jàngale di dem ci jàkk yi yore ñeenti jabar te mosuñoo taxaw hôpital. ñun ñu gis loolu dégg loolu rajo yi duñu ko wax journaliste yi duñu ko wax ñi am ñàkk fayda ñàkk koy gëm bëgg bëgg topp tubaab bi dama doon wax toujours ne tubaab bi ñun ñee nañ ko waaye ñoo ko ëpp doole ñoo ko gën le ñoo ko gën a baax le lii daal mooy gu mag ñi suñu ko toppee jëriñu bisimilah. jërëjëf al oustaz Mamadou Lamine Dramé mu mel ni sax euh, waxtu bi euh, dab nañu xam naa ni ni ñu koy waxee yaa ngi fas yéene ànd ak jàmm ji info point net. Mhm. ki programme bi nga xamante ni sax xam-xam bu sell te wóor tabarkalla euh, mu nga spécialisé nag bu baax a baax ci fajum cosaan ak aada waaye tamit ñu spécialisé li nga xamante ni mooy ci yeneen tawat yu bare bare yoo xam ni macha allah da nga koy faj. fan nga jëm incha allah émission bii di ñëwaat di jox dig daje mbooleem suñu internet rawatina téléspectateur bu jàmm ji info point ban ban programme. baam leen joxaat sunu beneen programme buy ñëw incha allah waaw jàmm ji info point net euh, jàmm ji la ni ko tuddee rek jàmm loolu la lislaam wax al islam ci baatu arab mooy jàmm. waaw léegi nag jàmm nag danga koy da koy da nga koy topp boo ko toppee di nga ko jot euh, tey itam man ngaa ànd moom su ko defee rek nga daal di jëriñu kon daal jàmm ji info euh, comme ni ñu waxee kàggu mag yi nii ñu ngi ci 32 points yoo xam ne ni mu ci kanam yoo xam ne ni incha allah. Eh, jàmm ji info dana leen ko indil ànd ak seen am di jàmm al oustaz Mohamed Lamine Dramé yooyu nag képp koo xam ne ni bëgg ngaa jëruñu ci wàllu siti wala wàllu saan wala wàllu kàttan ngay dund ba dund sàppi la ngay yore ñeenti jabar doo am benn problème dangay topp jàmm ji m fo la kat te fu mu nekk nii man li ma gis man ci sama xam-xam maa ngi def faj ñaar fukki at ak ñeent wax dëgg yàlla moo nekk suñu kanam la may wax wér na te it amul tappale te waxul mag ngi lay wax ñun ay kilifa lañu dara du ñu wax ay waxu tappale jàmm ji info li may wax lu wér la su wéru doon duñu ko wax in nag moom la ñu àndat képp ku ñu soxla yi sopp kuñ ku ñu sopp wala nga soxla ñu wala nga bëgguñu wala nga gëm li ñuy def depuis ñaar fukki at ak ñeent ànd la ak ñu ànd ak jàmm ji info nekk ci jàmm bisimilah. jërëjëf mbokk yi ñu di ko santaat bu baax a baax gis ngeen li ñu leen wax rek di leen wéy tamit tamit di abonné bu le defee rek mën ngeen a waaye tamit bës seen cloche de notification bi mooy tax euh, vidéo bu jàmm daal di dugal rek ngeen mën a rek fas yéene ànd ak euh, seen émission kàggu mag ñi euh, gis ngeen tamit yàlla baaxal ko lool ci wàllu pajum cosaan ak aada waaye tam ci wàllu asrar di dimbalanteeg askan wi yaakaar naa ne askan wi ràññee nañ ko bu baax ci biir réew ak biti réew mbokki di leen fàtt rek ni euh, moo ngi bokk rek ci FEDRAS di fédération des tradipraticiens de santé du Sénégal euh, di leen fàttali numéro téléphone baa ngi noonu rek di affiché ci baaru écran bi 77 553 64 56 wala beneen numéro bi 70 473 82 84 mbokk yi di nuyuwaat bu baax a baax waaye nag leen ko fàttali rek moo ñuy fii ci diwaanu Parcelles Assainies unité 22 euh, di nuyu mbooleem équipe technique euh, bu jàmm ji info euh, point net ci wàllu éclairage bi caméra beeg montage bi l'infatigable di Biggi Ba waaye tamit di waat bu baax ci wàllu réalisation bi Coumba Ndoffène Diouf ci wàllu présentation seen jotaay kàggu mag ñi ak seen mbokku taalibi Mouhamadou Lamine Muntaka yàlla mi borom jàmm teet ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla saa borom bi doolu ñu defal jàmm